asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax wa man dafa am luma metti lool sama biir xool ba tey mënatuma ko garder toll na foo xamante ne il faut que ma partager ko ak sénégalais yi waaw man dama nekkoon euh, di stage hôpital Fann ma xamante ne benn médecin bu ñuy wax Ousmane Cissé. waaw fan la nekk service neurologie maître assistant la fa nekk en même temps moom mooy président commission santé et protection sociale du mouvement des cadres de PASTEF moom aussi moom la Ousmane Sonko doon tudd ci coowal xale bu jigéen bu siiw boobee voilà parce que moom dama xam depuis deux mille dix neuf ma nekk hôpital Fann mu ñëw doon génn nag man pendant deux ans mu def lu nekk pour àgg sama kaw ma ne ko nag man dañ ma yar sama éducation mayuma loolu wala bi mu xawlee xool ba sonn mënta àgg sama kaw ci lay yónni ay mbokkam pour ñu may ma ko waaw ñu may ma ko ci faratas yàlla sunnus Muhammad mu nekk sama borom kër mu sëy mu fekk ma xale bu ndaw xamal ma àdduna nag découvrir ma waaw bi ñu sëyee un mois ma dem ba xam ne moom daal ay mbokkam xamuñu ma xamantewuñu ak man lijjantuñu ma ma xam ne waa ji takku suuf la def bi ma xamee ne takku suuf la def ma ne ko nag il faut que ngay assumer say ñaari ay fii parce que am na jabar il faut nga may jox sama ñaari ay di jox sa soxna bee ñaari ay parce que jabar la kom man dañ ma laa may ci faratas yàlla sunu su Muhammad mais su ma ko waxee loolu daal affaire xuloo la may indil ay xuloo yu kenn xamul ma ne ko léegi yow comme que pré woo pour ma sa famille man dinaa pare pour présenté wu ñëpp xam ma dinaa commencé sa jabar lijjanti naa numéro numéro ma ngi nii dinaa ko wo sa yaay aussi dinaa ko woo te dinaa fa dem mu ne ma defal la neex mais xamal ne boo leen ko xamalee dinaa la may sa baat waaw ma ne ko man nag nëbbatuuma laaxatuuma parce que man samay mbokk ñëpp xam na nañ dañ ma takk ci faratu si yàlla sunnas Muhammad kon nag awma lu may nëbbatu jabar ji xamal ma ne carrément moom xamul ne jëkkëram takk na jabar ma woo yaayam aussi yaayam wax ma loolu mu ne moom xamul ne doomam takk na jabar ma déplacé wu dem ba Pikine ci yaayam toog yaayam wax yaayam ni demee yëpp yaay ji dama man mosuma yee fu mu takkee jabar léegi nag bi ma waxee jabar ji yónnee jabar ji vidéo takk gi waa ji ci la ma envoyé vocal ne ma may naa la sa baat ci faratas yàlla sunu Muhammad ma ne ko nag takki woo ma woon fii ci whatsapp bi ba may mayee baat ci whatsapp bi waaw te di la dugal ci man génnew la ci boobu ba léegi mu abandonné ma fii apartement bi ma jëlal fayatu ko joxetul suma dund essence bi daal moom nee na doyal na sëkk parce que euh, atteindre na objectif am daf ma bëggoon a découvrir découvrir na ma nag voilà bëgg a dem noonu mais man nag bañuma ci dara dinaa dem ak moom ba fa mbaxana doonee benn mais vidéo bi audio bi su ma ko defee c'est pour sensibiliser sama mbokk xale jigéen ñu yeew bu baax a baax xam ne xale góor yi am na si ñoo xamante ni bëgguñu te yàlla tax dañuy xemmem découverte donc moo leen di dugal ci xale bu jigéen bi parce que man ndaw laa xale bu ndaw laa vingt et un ans mu ñëw découvrir ma xamal ma àdduna ba pare fooyo ma yàq ma pare bëgg a demee noonu nag ma ne ko nag bu yombee noonu dinaa dem ba fa mbaxana doonee benn jël naa sama avocat li ci war yëpp dinañ ko def waaw maa ngi jéggalu bu baax ci kàddu gi ci kàddu yi ma wax pour xale yi jigéen yi yeewu rek xam bu baax xam ne góor ñi dañoo lëndëm parce que koo génnal ñaari at koo génnal ñaari at kooku moom lum la wan ci génn gi ba nga sëy ak moom du lu lëndëm leer la ma wan ci deux ans yi mosuma wan dara lu lëndëm su ma ko wanoon du ma sëy ak moom mais daal découverte ak xemmem moo ko dugaloon si man asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi